oui bon question responsabilité bi il faut ñu relativiser ko. Mhm. man ñi ñi fi wax ñëpp am na ànd ak naa ñoom en partie si si question de responsabilité bi mais aussi teew responsable aussi dina am. Mhm. parce que dans toute société dafa am organisation. te l' assainissement fait partie des pans nga xam day déterminer l' organisation d' une société. dans tous les grands dans dans tous les grands pays du monde soo fa demee dañuy jël des des des des des solutions durables. durable bien vrai que nag am na benn côté ma nga xam ni loolu moom kenn mënu ci dara c'est des questions climatiques waaw dafa am benn question ba nga xam ne mooy la question du réchauffement climatique te loolu ça concerne tout le monde chaque année je pense que euh, les États du monde se réunissent pour vraiment trouver des solutions sur le réchauffement climatique parce que moom moo nekk à l'origine de tous ces phénomènes là mm-hmm. le réchauffement climatique te loolu dafa dépasser Sénégal dépasser même Afrique sax sax Afrique victime la parce que l'Afrique pollue moins, mais subit plus le les conséquences du réchauffement climatique. Avec l'industrialisation en Europe, léegi sax ñoo ngi européens ñoo ngi wax ni léegi euh, l'exploitation de nos ressources pétrolières la nañ ko arrêté alors que ñoom pollution moo leen développé ba par ñu bëgg ñun ñu ñu arrêté xam nga loolu contradiction la mhm. parce que ñun dañoo am ay impératifs économiques yi nga xam ne wax dëgg la dañ ko war a satisfaire parce que problème yaa ngi fi besoin yaa ngi fi en éducation en santé j'en cite te il faut que ñu exploite suñu ressources yi pour mën a faj suñu problème yooyu mm. Europe ñoom ñoom il parle maintenant de l'économie verte mm. parce que seen développement foofu la tollu léegi léegi am na oto yoo xam ne dootuñu consommer voiture am na oto yoo xam ne batterie nañuy consommer léegi dootuñu consommer carburant si monde boobu nañu jëm loolu c'est un autre débat parce que ça dépasse le Sénégal à un mais am nañ si aussi benn contribution bu état bu euh, chaque état ba nga xam ne chaque war na war na ko si def mais suñu ñëwee dans le cadre strictement national et dans le cadre de politique de gestion des affaires publiques dafa am benn responsable yi nga xam ne aussi comme li soir ça impute à l'état de façon générale et yëpp bu démb ak bu tey xam nga lu parce que euh, je vous donne un exemple prenez certains quartiers à Dakar Sacré-Cœur 2 sacré un 1 Mermoz Fann Résidence mais mm. quartier yooyu du taa kan moo ko tabaxoon c'est depuis Senghor mais depuis ak ak Senghor aussi ak Gibraltar c'est des quartiers yoo xam ne c'est des bien parce que dafa am benn plan d'assainissement bu leer bu fa amoon nga xam ne lu mu taw taw da ngay su taw bi su paree da ngay génn doxi soxla mais léegi am na yenn quartier comme yi nga xam ne comme Almadi bii nii même même quartier noonu ñoom la ñu def non mais Almadi muy commencé di taax Almadi du exemple quartier Almadi Almadi ah, excusez du terme mais Almadi beneen affaire la Almadi euh, <laughs> c'est un quartier extrêmement paradoxal entre guillemets y a des gens extrêmement riches qui vivent là mhm. mais mais euh, euh, Almadies seen assainissement Kër Massar sax moo leen tane presque. Mhm. wala moom nga koy comparel ça veut dire que mën nga génn si kër guy jar un milliard après da ngay xuus. Mhm. donc loolu c' est euh, benn benn genre paradoxe la nga xam ne kenn xamul lu ko koy expliquer. mais li ñu koy expliquer rek mooy des politiques ça c' est à dire dama ni mooy politique ma xam ni tubaab bi ñoo fi defoon Senghor ñëw continuer ko man jama jàpp ni Abdou Diouf su ko defoon. Abdoulaye Wade ñëw def ko Macky Sall ñëw def ko du ñu dund situation yi parce que léegi dañu nekk si benn situation léegi cest habitation spontanée mhm. les promoteurs immobiliers fu leen neex nañu jaay terrain fu leen neex nañu jaay terrain cest duñ amul étude géo euh, géotechnique amul dara kenn xamul ni voie d'eau la wala nangam dañuy ñëw rek def lotissement administration aussi am na ses responsabilités mooy l' administration domaniale ñoo ñoo ko ñoo mais ñoo alors que c'est des zone yi nga xam ne kenn waru fa dëkk place su ndox la su taw bi am na benn niveau bu muy toll rek lépp inondé gis nga cité Bellevue xool cité Bellevue nu mu mel mm-hmm. cité ba nga xam ne bu njëkk ay borom barke rek ñoo fa dëkkoon mm-hmm. mais su tawee euh, zone de captage aussi un exemple mi ngi noonu donc raison pour la laquelle mm-hmm. l'État aussi sur ce côté là dafa war a jël am à mon bi des mesures très quand même euh, pour régler ce problème là c'est c'est le problème à Touba aussi Touba gars yi dañuy dëkk rek surtout quartier Sancaan yi xam nga Touba s'agrandit Touba day day day day kii rek ah, dina dem dina dem ba day englobé Mbàkke te nit ñi da ngay ñëw rek ñu daggal la terrain nga ñëw dëkk kenn noo xam fi fi nga war a dëkk ndax place ndox la wala seen yoon newu ci mm. ay tool tool faa xam ni nit ñi ba doon bay ñu koy ñu koy ah, ah, lotiser di nga jox ay nit ñu koy ñu koy kii mais tool ku xam ni tool tool kenn waru fa dëkk mm, mm. pour place su bay la mais malheureusement yooyu yëpp xanaa ba pare beneen problème aussi am xam nga loolu question urbanisme Adama Fall wax na ko léegi loolu urbanisme ñoo war a gérer loolu. est-ce que comprendre c'est-à-dire que ñun suñu politique de l'urbanisme dafa faillir foofu. d'accord dafa faillir foofu léegi nag suñu ñëwee ba si beneen euh, côté bi aussi mooy euh, côté assainissement parce que wax dëgg yàlla assainissement bi cest li ñu war a def ci assainissement bi. on a parlé de au temps de Macky de 700 milliards. 750. c'est waaw 750 milliards. mais 750 milliards. bon man du accuser kenn. parce que aw ma ay éléments yu nii damay kii nangara mais est-ce que réellement euh, a été efficient. efficient c'est-à-dire que kees xam nga xaalis mën na bare. di fa doon un exemple dem mu dem cest à problème bi mën nga jël par exemple sa jabar jox ko vingt cinq mille francs ko ceebu jën laa bëgg wala cinquante mille sax nga ñëw mu toggal la ceeb ba xam ni soo mosee dootoo dolliwaat. nga jël ka nga xam ni soo ko joxee dix mille francs mu toggal la ceeb ba nga xam ni soo ko lekkee da nga xam ni lii dañ ko dañ ko togg donc pour man la xaalis bi bëri bi amul amul njëriñ li am solo mooy efficacité fu eh, eh, investissement bi te loolu day ñëw si le choix parfois des de des de de ce qui travaille dans l'assainissement ki ngay ki ngay entreprise bi nga koy jox ndax entreprise bi am na expérience yenn assainissement yi est-ce que am na cest dikk am na yenn jumtukaay yi pour def yenn assainissement yi yooyu yëpp aussi day ñëw donc question yow aussi mhm. euh, je pense que euh, nous y sommes mhm. actuellement nous sommes arrivés au pouvoir mhm. il y de cela mën naa wax six mois est-ce que vous comprenez te wax dëgg yàlla on est est-ce que loolu tax na war na tax ki nga xamante moo di le ministre di wax léegi du suñu taw no non pas du suñu taw xam nga taw moom taw moom taw Sénégal yëpp la da dama ne sax taw du sax taw Sénégal taw ma mbiru yàlla la. Mhm. est-ce que vous comprenez peut-être la ministre ce qu'il vous pouvez dire cest à que bon euh, c'est-à-dire que conséquences yi la la bëgg wax foofu quoi à mon si sama kii si sama si sama si sama sama jàngat quoi mhm. conséquences la bëgg a wax mais incha allah dans les dans dans les dans les années à venir on va mettre quand même les fondamentaux d'un bon assainissement Merci. pour permettre c'est-à-dire que fondamentaux de loolu du garantir ne inondation doo mm-hmm. France moo ñu ëpp doole téeméer junne yoon mm-hmm. ay inondation ay ñoo fay États-Unis mi ngi nii ñëpp xam nañu États-Unis seen doole foo ko natt weesu na te parfois day inondation ba ay nit yu bëri dee yooyu xam nga parfois c' est des nga xam ni on peut pas les maîtriser mhm. mais aussi nañu xam ni rek mhm. euh, l' du Sénégal mhm. surtout le régime actuel am na volonté te incha dans les jours à venir pour man am na yenn correctifs nga xam ne suñ ko apporté neew ma dina régler définitivement la problème mais quand même dina dina vraiment indi des solutions mhm. yaa nga xam ni vraiment dina dina dina dalal xelu euh, Sénégal yi population yi mhm. aussi dina wàññi aussi euh, les questions d'inondation ak les conséquences aussi te maa ngi profité avant de terminer pour jaale aussi mbokk yi si jot yi génn adduna mhm. parce que wax dëgg yàlla metti na trop nga nekk sa kër tëdd war a noppalu euh, taw mu gajaf daanu sa kaw te loolu aussi day indi beneen question ah, question des constructions mm, mm, loolu la tamit loolu aussi xam nga mbir dafa bëri effectivement voilà dafa bëri luñ ci parce que inondation bi dafay réunir ay dafa c'est transversal effectivement voilà c'est ça